masawa ija yamta bi may jeexalee pour jox alaaji Idrissa mooy dama moon tudd tey imaam Yuusu Géey waaye waxuma ko ñu bari nag jigéen ñi xadara bi moom wax naa leen ko démb waaye dama leen ne bu kenn ñëw bi ma leen di recevoir ne da ko bàndu mit ma ne leen bu kenn ñëw salaba ko dëgër bopp la mu téléphoné waat ma ne Mansour ne ko bu mu ñëw xanaa leer na ngénte kañ dañ lay invité nga ñëw boo gisee ajjuma dafa xat tey àjjuma la war a julli juma wala def xadaratul juma bëgg a toog ci ngénte toogaayu ngénte day metti ma yéggal ko ñépp lu dul ñenn ñenn fa ne woon rek balaa juma sax fekk na ñépp dem nañ seen yoon may bi biñ jul balaa tàkkusaan fekk jógee naa fa doom ji nag ma tuddee ko Cheikh Mahmoud Khalil al-Husari moom laa ko tuddee tuddee naa ko cheikh mahmoud xalilil xosari radiallahu taala an cheikhul muqaari fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin waaw moom laa ko tuddee lay naa ko nag ndax dafa am ñu doon toog xëy na yéene naa leen tuddee doom ma ne leen man sama bàyyi sax tuddeeguma ko doom yàlla xam na ko sama yaay tuddeeguma ko doom ndax sañuma ko ci ndigal laay woy sama doom bu jigéen bii mujj juddu booba ak léegi 4 la moo am rakk nii mille 2015 la juddu bi mu juddoo rek ma téléphoné Thierno mun Mountaga daa Cheikh Omar ne ko soxna si mucc na mu ne ma jigéen la am ma ne ko mu ne ma tuddee ko sa soxna bi gaañu loolu lu ma ci doon ngaa nga ma sax ne ma jigéen la am tuddee ko sa soxna bi gaañu léegi rek mu ma koy fàttali fàttaliwaat kële juddoo pare di jigéen waxaguma ko ko sax mu ne ma Seydatuna Khadija wallahi hmm. te booba moo ne ci sama xol ndax moom laa ko waroon tuddee léegi rek yooyu yépp cam na Bachir ak ma koy fàttali fa tabarakallahu 1995 lii ma def tey ci la amoon ci lay joxe alxaaji Idrissa nee naa nag yu ci bari sax duma ko nettali ndax damay bañ ñu foog ne damay jimaamu walla damay baat bàkku wala damay yëkkati sama bopp quatre-vingt-quinze yal na ko yàlla yërëm Ismaïl Korea Ismaïla Korea moo doon bilaalu jàkka ji xale la doona dooroon a takk jabar Cheikh Ibrahima Sàll yal na ko yàlla yërëm bu Cheikh al Islam Alaaji Ibrahim Ñas Baay fii ci fit mi yéen ñépp xam ngeen ko sama diggante ak moom moo amoon kaamilu xosari man dama ko yàgg bëgg xosari ba may gone bi ñuy xaritoo nag te miinaguma mu am kaamil bi moom Cheikh Ibrahima ma ne ko da ma koy abal ma sotti ko mu ne ma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nga xaw ma la bu miinuma la nga yóbbu sama kaamil sotti boo ko yóbboo fu ma jëm ah, ma muñ ma ne ko léegi nu ñuy def mu ne dama lay jox pare benn ngay sotti di ma indil te boobu xam ngeen média melut nii muy sotti bu métti ndax deux ma ma ñett fon double cassette yi laa amoon boo tegee fii teg fii da ngay jonkon ndax buy jeex rek nga gaaw bés continuer bële di nga fexe ba aaye bi rëccoon fii nga dabaatal ko fële ak métti weeru yàlla laa ko enregistré boo xam ne bër bu set maag ko Korea ci la ñuy nekk ba 4 heures du matin mu dem nodd ñu julli wasifa ma door a tëdd maag Ismaïla yal na ko yàlla yërëm muy doomu Anta Cissé Adja Anta Cissé fii ci gannaaw jàkka ji la dëkkoon yàlla def Fama Wade sax yàllaa ko baaxee rek waaye boobu néegam moo doon salle bi en même temps ndax dañ xaajoon néeg bi waaye du onk du wax yàlla na ko yàlla yërëm xam nga kuy enregistré ki a ngi tëdd fale war a xëy dem liggéeyi nga nekk fa yow di enregistré te day wax enregistrement bi da ngay yokk rajo bi muy wax ba guddi gi mu pare Cheikh Ibrahima daf ma mujj yërëm ne ma léegi wóolu naa la yóbbul kaamil bi su jeexee nga indil ma sama kaamil ba léegi enregistrement boobu maa ngi ko denc dara mejju ci kaset moo amatul léegi xam nga léegi moom daanaka jël ay magnétophone di roof kaset ak Europe bi xewi na waaye maa ngi ko denc comme archive ba léegi bi ma enregistré ba mu jeex ba minal jinnati wannaasi ma jox Ismaïla loxo mu jox ma loxo ma ne ko nañ jàng Faatiha salaatul Faatiha li ma bëggoon am naa ko am naa kaamilu xasari ñu jàng Faatiha salaatul Faatiha boobu trois heures et quelque moo jot di matin ma ne ko dawal tey moom teel na ñëw pare dawal tëri ma gunge ko tëj bunti kër gi ñëw toog di def salaatul Faatiha xosari ne jameet ci sama kanam ne ma ana Mahmoud Khalilil xosari billahi lazi laa ilaha huwa alxayul qayum joxoñ ma ci ndeyjooram ne ma xoolal ma xool mu ne huwa rasulullahi mu ne ma kii ci wetam gisuma ko kooku nag gisuma ko mu ngi muuru weex tal mu ne ma huwa hiya aminatu bintu wahbin ummu sayidil wujudi sallallahu alayhi wa di ne ma sa soxna sii tëdd dafa ëmb dina am doom bu jigéen na ko tuddee aminatu bintu wahbin mooy aminatu mii ci kër gi bi am na jëkkër tey mooy aminatu mii ci kër gi loolooy sababi turam amu ngi ci suuf ko wàcc fekk ko ci suuf te maye naa ko daaw avril bi passé laa ko maye xam ngeen kon loolu yàgg na la ma ca gën a neexati mu joxeñ ma ne ma yéen tiijaan yi am ngeen lu kenn amul moom xasari de na ngeen fonk seen tariqa bi te jàpp ko daal dina ma sama digganteeg yow kóllëre alxuraan la sa juróom-ñetteeli doom maa ko moom tur bi sa doom juróom-ñetteeli doom bu góor maa ko moom te boobu aw ma doom bu góor Aminatu mu ngi juddu le 2 janvier 95 Mohamed moom laa njëkk am ci doom bu góor mu ngi juddu le 14 septembre 95. Aminta Dieng jur ko kii Fama ci Muhammad laa njëkk a doom bu góor boobu may mun naa nga tiwaawoon Aminatu di jigéen Muhammad topp ci kii juddu mooy sama juróom-ñetteeli doom bu góor doom bu góor kii mooy sama juróom-ñetteeli doom bu góor moom la ma waxoon ne nag ma ko tuddee mooy sama tur te boobu xalaatuma sax dina kuy may sa bopp kenn day xam looy am góor walla jigéen. ma dem ci kursu ba liñ toog yépp sëriñ Cheikh moo ko exigé woon ci kursu bi ne nañ koy teg imaam Mahmoud Khalilil Husari bi mu ñëwee Sénégal ñi ko doon gunge. maanaam giddam yi si sa jinga la woon ak Mouhamed Guèye ca Thiès moo jur Cheikh Guèye bi di jiite ci yoof bi muy dem ñaari diplôme yi mu bind dafa ne si sa jinge yow d'accord naa ne mën nga alxuraan ne Mouhamed Guèye d'accord naa ne mën nga alxuraan su ma ñibbee dinaa leen bindal ijaaza ci alxuraan ñibbi bind ijaaza yi yónnee Mouhamed Guèye yónnee si jinge dem leen laaj si sa jinge siise nee na bi ma jotee ci ijaaza bi yóbbul ko Serigne Cheikh Serigne Cheikh confisqué ko ba léegi siise gisaatul ijaaza bi te présidence lañ ko jëlee di ndax officiel la présidence lañ jële ji isa ijaaza bi jox ko siise jinge siise jinge yóbbul ko Serigne Cheikh Serigne Cheikh confisqué ko mu ne siise nee na bañ koy sargal di ko màggal imaam Moussa Guèye mooy wax. ni garde yi taxawee. mu ne ni garde yi taxawee. di garde rouge yi. di garde rouge yi. na ñu génneendoo ndoor yi. nañu génneendoor épée yi. tàllalandoor ko tàllalandoor ko. mu ne mu daw moom Cissé xam da foog ne dañ koy rey si na dëgg xam nga dañuy génnee épée yi ne hoo major mi xam na li may wax ndax gendarme la rek Cissé fëx. nee na ñu téye ko ne ko yow la ñuy teral mooy kat teraanga jooju daa wóorul di buñ la coree na sa sab noonu bu ca nekkee coro la doo fa yem xam nga siise moog si di maxtaar kuntaayam xamuñ sa fu jant bi di fenkee ak fu muy soyee boo ko ko laajee xamu ko waaw siise nitu kese la nitu kese la waaye ba mu ko yóbboo Fass Touré déglu li may wax de sëñ Haadi Touré dafa ne imaam xosari balaa may nangu ne mokkal nga al mën nga alquran nga jàng ma dégg ndax maa la dàq alquran xosari ne ko lu tax mu ne ko ki jàq ki dàq ñépp alquran moo ma jàngal alquran Malick Fawad Wele mu ne mu insisté ne xosari jàngal ma dégg xosari jàng fatiha yeggul sëñ Hadi ne ko gëm naa ne ñi yàlla fal ci alquran ci nga bokk ndax nii laa ko doxalee woon ak Seydul Xaaj Malick moom it kaamil bi mu defee woon tour du monde xosari mooy moom dafa yéemoon àddina bi mm. moo njëkk a jàng alquran ci saalu Nations Unies invitation <laughs> saalu Nations Unies mm-hmm. te ba mu koy jàng ña ña ko doon déglu gëmuñ ko sax waaye dañ ne baatam bi li ci ne du kese kese na ñëw jàng ñu déglu ko mm. xam nga loolu Idrissa beneen affaire la. Mm. maa ngi ñëw foofu laa jëm si imam Moussa may eh, eh, jox ay élément moom daf may toujours nag nii la dëkk ak man yàlla def ren Élisabeth bii nekk Angleterre deewagul yàlla na gudd fan invité ko ci palais royal ne ko dama bëgg nga jàngal Alxuraan ma dégg donte duma jullit reine bii laa wax de reine bii xosari jàng fakk alquran mu may ko alal judut jeex mu dem tabaxee ko jàkk bi mu defee tour du monde ba ñëw fas Touré nag xale yi di jàng alquran fa la xosari mos jooyee ci alquran mosul jooy ci alquran ku mos a dégg xosari muy jàng alquran ba jooy kenn mosu ko dégg xosari ne ko duma ko def mu ne ko lu mu ne ko damay bañ nga commercialiser ko seetal loolu ci président bu la woo mu ne ko duma ko commercialiser mu ne ko da koy waat mu waat ko mu ne ko kon jox ma moyens yi ma def ko mu jox ko tous les moyens mu enregistré ko baqara bennaasi bi riwaayati tartil moom la njëkk a def ci alquran def ko ñeenti kaamil Jamal Abdou Nazer sotti ko def ko ñeenti kaamil moom it jox may bàyyi ñas ñeenti kaamil yi waaye bàyyi bu ko neexoon ba mu ñëwee mu denc ko dafa dem Tiwaawoon jox Alaaji Abdul Aziz benn kaamil ne ko nañ koy teg ci jumaa ji dem Touba jox sëñ Abdul Ahad benn ne ko nañ koy teg dem Medina Baye jox leen benn ba léegi moom lañuy teg ñëw Dakar fii rajo senegal jox leen benn kaamil ne leen fajar gu jot de leen ko teg mooy li ñuy teg par fajar foofu la cosaanoo mu ne leen fekk yéen a koy teg réew mi di am njàmm loolu ci làmmi ñu cheikh al islam alaaji ibrahim ñas bàyyi la jóge kon waaw imaam Moussa nee na mu ne boobu fekk ne israiliyaat yi defar ay kaamil dugal ci ay yàq bokk na ci li tax xosari nangul jamal abdu naseer loolu mu def jàng alxuraan enregistré ko yónnee ko ci réewi jullit yi ndax bañ ñu kooj alxuraan yàlla defal ko ci lu lu kenn mosul am na bu mosaan ne cëpp makkatal mukarram ak Medina mooy jiite ba ba muy ñibbi fukki xiraa ak ñeent moom lañ miin ci alquran maanaam fukki njàngin ak ñeent moom la yonent bi wax salaay salaam waaye nee juróom-ñaar yi moo dagan ko ci julli fukki xiraatu saba yi moo dagan ko ci julli xosari nag fukki xiraat yi ak ñeent yépp jàng na ko kaamil enregistré ko def ko tartil def ko mujawwat bu ci nekk def na ci ñeent loolu kenn mësu ko def ci àddina te kenn du ko def ila yawmi yub'asun te boo demoon ba sukru nam la ba mu dëkk ca Égypte ndëkk su tuuti lay tuuti yàlla nga xam ne ay mbiram kenn xamut fa mu dëkk ca Choukour nam la ci Égypte ndëkk su tuuti la fa la juddoo fa lañ ko denc kon mu kooku nag laa ko tuddee moo tax tey yàlla xam na sama àddina dafa tukki waaw ndax am na yu ma ñemewul nettali am na yu ma ñemewul nettali gannaaw sama ndey ak sama baay ak samay sëriñ xosari ci ñi ma gën a fonk ci la